moo doon euh, sayma ak euh, saytu liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def mbirum ndox mi ñuy naan euh, rawatina nag jëmale ko ci màggal bi nga xam ne moom la ñuy moom préparé xam ngeen ne Touba déjà dëkk bu mag la dëkk bu mag la ci yaatuwaay ak ci limu doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi yeewoo donc ci ñaari fànn yooyu yëpp lu ñu war a saytu la na nag su fekkee ne ñu ngi dem ci màggal ah, ci mbirum ndox mi li nga xam ne moom lañu mën a wax mooy xel mën naa jàpp ne foo xam ne fii juróom-benn téeméeri junni eh, nit ñoo fay yeewu su fekkee ne lim boobu danañ ko ful lu mat ñett wala ñeent jëmale ko ci màggal bi il faut que ñu jël yeneen matuwaay pour mbirum ndox matuwaay yu ñu jël nag mooy li nga xam ne moo fi am d'abord ci forage ak ci ay groupe électrogène ak yëpp OFOR daal di leen euh, toppatoo lépp lu ci paan ñu réparé ko xoolaat ko yeesal yenn yi loolu OFOR def na ko ñaareel bi mooy dëkk bi dafay màgg day laaj tamit euh, euh, tuyau yi nga xam ne mooy yóbbu ndox bi ñu ko yokk at mu jot loolu tamit lëkkaloo nañ ci ak kilifay dëkk bi ñu wax ñu fan lañu ñu war a def extension def nañ ci extension euh, beneen bi mooy euh, euh, dañuy indi ay camion yoo xam ne yi du manqué ay quartiers yoo xam ne yi xëj na ndox mi du doy camion yooyu ñooy wër di ko yóbbu waaye li nga xam ne moom la ñu bëgg nag mooy ñi nga xam ne ñëpp am nañu mànn ndox ci seen kër balaa màggal gi jot ñu signalé ko OFOR fi mu nekk nii comme camions yi bariwuñu liggéey su boobaa camions yi dañu mën a duy ndox dem diyal leen mbànd seen kër te loolu dana am njeexital bu muy indi ci ndox mi am ci ci Touba ah, ak bâche à eau ay citerne yoo xam ne indi nañ ko yenn kër yi danañ ko fa mën a teg loolu yëpp dana am njeexital bu muy indi ci ndox mi waaye nag xel mën naa jàpp ne foo xam ne fii lim bi dafa ful Euh, du manqué ay jafe-jafe waaye OFOR indi nañu équipe fii pour ko jafe-jafe am ñoom ñu mën cee indi saafara beneen bi moo doon euh, mbirum maintenant ndoxum taw mi xam ngeen ne fi mu nekk nii màggal bi ci biir euh, nawet bi la nekk te tey jii bi ñuy ñëw taw bi moo ñu teeru tuuba ci waxtu yu bëree bari ci liggéey bi ñu ko def ci ci suufu taw bi ci biir taw bi lañ ko defee te li nga xam ne moom lañuy xayma. ñu koy wax météo euh, euh, am nañu yaakaar ne soo moytul euh, suñ ne suba la màggal gi ak bésu màggal gi dana tawaat Touba donc loolu nag ay xéewal la waaye tamit dana indi ay jafe-jafe liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def nag mooy station bi fi nekkoon Kër yokk nañu li nga xam ne moom laa doon mën a pomper ndox di ko yóbbu Daaru Rahman ak Pofdi jël nañu Pofdi ak Daaru Rahman ñaari bassin yi fa nekkoon lëkkale leen ba pare nag di essayer fi mu nekk ni di lëkkale aussi pof di ak kër kàbb nga xam ne kër kàbb mooy bassin bi nga xam ne moo gën a rëy moom la ñu am am na liggéey boo xam ne bii ñu ngi koy def ngelimu aussi moo doon foo xam ne fii dafa suufe woon di taa foofu danañ fa def bassin bu rëy mais en attendant ci fay def bassin def nañ fa pompage boo xam ne mooy jël ndox mi di ko yóbbu kër kàbb ñu amoon aussi beneen jafe-jafe boo xam ne bii taw bu njëkk bi wane woon na ko mooy ci kanam maire yi touba nga xam ne daf daan am ndox boobu sax euh, ONAS office national d'assainissement amoon na matukaay yu rëy yum ci jël mooy def fa benn euh, pompe boo xam ne bii lu mat million ak genn wàllu litre dana ko manque euh, par par waxtu waaye yéen ñëpp gis nañ ne bi ñu defee foofu pomp boobu ak tuyau yi nga xam ne moo waroon na yóbbu ndox mi ci station Shell bi dafa am ñu ñëw daal di dagg tuyau yooyu looloo tax fan yi ñaari fan yi kenn pompul looloo tax sax tey bi fa awee ndox mi bari fa waaye meeru meeru Touba mën naa seede ne kooku bi muy dox euh, au lieu que ndox mi dafa toog ñetti fan ñeenti fan daawul dem ci lu mat ñaari waxtu wala ñetti waxtu ndox mi daan na dem waaye nag fi mu nekk nii liñ ci ut comme saafara mooy lancé naa programme mu euh, euh, pompage ak camion yi camion yi mais camion yi ñoom limu ndox bi ñu mën a pomper bokkul ak euh, pompe bi fa defoon ak tuyaux yi li mu mën a pomper waaye indi nañu fa lu mat euh, ñaar fukki camion yoo xam ne yi commencé nañu pompé tey donc daal euh, jël nañu ay matukaay li ñu mën a wax mooy yéene bi mi ngi fi woon pas-pas bi mi ngi fi farlu bi mi ngi fi liggéey bi tamit équipe bi ñu ngi ci terrain li ci des nag dañ koy bàyyi ci loxoy yàlla di ñaan yàlla lépp rek ñëpp ñëpp mën a ñëw ci màggal ci jàmm dellu ci jàmm. jërëjëf réseau bi ñu saboté. Ah, waaw ñi nga xam ne ñoo yàq la nag euh, tuyaux yi parce que du gis nañ ko ci euh, tuyaux yi nekk fële jóge ci mairie bi doon dem ci Shell bi waaye lu jiitu loolu aussi gisoon nañ ko ci tuyaux yi nga xam ne moom moo doon jógee euh, Kër Ñang di dem fële ci Daaru Rahman yooyu moom comme que yooyu ay kawsu la woon nit ñi dañoo jëloon dañoo jëloon. dañoo jëloon safara taal tuyau yi dañoo jëloon safara taal tuyau yooyu xam nga loolu nag suñ ko defee euh, du ay jafe-jafe lay indi parce que tuyau yooyu su fekkee ne mënuñoo yóbbu ndox mi nit ñi ci biir ndox mi la ñuy nekk donc euh, li ñuy ñaan rek mooy population bi ñëpp di rafetlu aussi yenn association jeunes yi ak euh, yenn organisme yu nekk fii ci Touba aussi liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy liggéey ak maire bi ci boppam liggéey yi nga xam ne aussi ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy rafetlu torop parce que ku ci nekk da nga cee war a jàpp waaye aussi population Touba yëpp nañu jàpp képp koo xam ne kii gis nañu muy def lu bon ci tuyau yooyu ñu mën koo signaler ñu arrêté ko parce que lolu dana dana indi ay jafé jafé am nañu ay information aussi comme quoi amna ñoo xam ñi ci ndox mi bëgg nañu aussi indi ci ay sabotage bés bu magal bi su ñëwé di di fermer ay ay ay canalisation wala dara xam ngeen ne mënuñoo teg policier ci derrière canalisation yi am Touba yëpp donc lolu aussi euh, population yi askan wi ñoo ci wara taxaw képp koo gis nañ ne gis nañu mi ngi def loo xam ne lii jaaduwul ñu signaler ko force de défense et de sécurité yi. jërëjëf